door asim ah, laay maa ngi door naa bëgg wala ñemewuñ la non non gars yi fu bu ma nooyoon jël nañ ma boo nooyee ñu defaraat nga jël Siteu ba pare ni ñemewuñ bu si ñoom bu desoon man man Siteu xëy na sax du ma si sori waaye dama ne wax dëgg yàlla kenn waxatu ko dimanche la dégg naa ne ku booy bëreel da nga ko jox saafara ni ko naanal di nga ko jox takkloo force waaye booy bëri moom loolu mënoo ko waaw mun na nekk de moom nga ñoom ay lañ mun na nekk xëy na su may bëri ñoom sax est-ce que du ma taxu gin pikin dem. geneen saafara ne naanal force. waaw am na ñoom nee nañoo mafia te seen mafia daa diis. tarkindaa lan te ñun duñu tarkindaa mooy loolu te tarkindaa boo dugg si ñoom day métti su ma amee combat damay tox xaw ma nag fu may jëm bu demoon ba taxaw. ku ma ñëw ay tarkadaar mooy loolu. boo dem kay ñu fekk la fa ñoom rek. ma toxuwaar rek dem gën a ñoo gën a sopp ay ay ay xorondam. déggoo ma ne ma toxuwaar rek dem feneen bu yoon jeex bu su du jeex. di leen xaar ci géew. waaw waaye rompaye rompaye rompaye kii rompaye <laughs> Demba Diop maa ko moom lu nit xamante xamante xamante boo fekkee jox ma cër. Euh, Ama Sène nekkagul si euh, Ama Baldé nekkagul si plan wu Modou Lo parce que accès gul si Modou Lo d'abord donc je pense que ça c'est clair daaw wax nañ leen ko Ama àggagul ci Modou Lo. ah waxam na xam ni kum rek moom lay wax la moom sa wax fii moom mooy loolu na baal ma xam ne Modou Lo tey ba ñuy pare combat mooy naan rey leen rey bu suur baa doo leen rey xam ne waxu mbër moom dafa xaw a garaaw waaw ndeysaan gis na sama mag ji après nu ko def loolu donc la. yow ñuy nga dem ci Modou Lo Modou Lo gën a sonal ci làmb ji. non sonal lu ko de. koo sonal kay am. ko de. Modou Lo Modou Lo Modou Lo Jules Baldé laaj naa ko fi mu ne ay ba ngeen di bëri mbapat te Modou Lo dalaa daan image yi mu ngi ci internet bi mu ne dañ laa toogloo deux heures deux quatorze heures ba minuit quatorze heures ba très une heure du matin. Modou Lo jël bu gaaw mun naa la cinq la ma daan. waaye loolu man nekk moo fi di wér xam nga tey nekkum mbër naa ay nii fii ñu ko seetaan ñëpp xam nañ ko nga nee na une la ma daan. mun naa ko ne tierce la sax matu une seconde daa juum tierce la moo a gaaw sax loolu mu wax waaye l'essentiel daal màgg naa te l'essentiel moom ba may bëre moom ñoom ñëpp comprendre ma dara dama nekkoon di teel a teel rek comprendre naa nag bu baax a baax luy làmb. waaw maa moom bëri nañ tamit loolu xam nga benn association bu mag bu nekk unité bi ñoo ko tegoon quoi terrain église bi xam nga bëri nañ ba ba terrain église ma daan ko ko. waaw moom rek maa doon compte la ma Modou Lo Modou Lo buy doxee beeg sax daa jël bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi ne ko let's go. kon bu ñu la laajoon combat bi nga gën bëgg bu ñu la wax Ama benn combat Balde nag. Ama Balde dañuy waxante dëgg. Ama dafa war a bëre Gris Bordeaux Ama dafa war a bëre Bombardier Ama ñu Modou loo bëree dafa war a bëre ak ñoom Ama loolu dañ ko écho xaalis la. Tapha Tine Modou war nañu mun a fayeeku chaque fois dama koy ma ne Ama ak Modou Lo bu ñuy bëre war na fekk Ama daan ñaari combat bu ñuy bëre ñu mën a fayeeku sax 200 millions. wala 300 yóbbu cachet bi fu ko nit musul yóbbu. mu ngi forcé nag parce que bëgg na bëri ak Modou Lo coûte que pour le moment nii mënagul a bëri ak Modou Lo. noonu daal la demee. non dama ne la foo dégg nañ ko sot ñeme amu fa ma ne leen man seul mun naa leen baatare ñoom ñëpp. Ama ak Modou Lo mu Ama dañ ko war a travailler waat mu jël ñaari combat VIP daan leen parce que Modou Lo saa yu ko waxee danaan la non Ama dina ñëw parce que dafa yéene xaalis Ama. Modou jëlul combat wu Ama pour le moment pour que ñu clore ce débat ku nekk ndëg am nga droit ne dama soxla Modou Lo parce que ñun on sait tey en tant que roi des arènes ku nekk ambition tey mooy bëre ak Modou ça c'est clair te loolu mënuñu ko bañ mais amaa na xaar. te jour boobu dama indi woon ngemb boo xoolee image yi xoolaatal maalaw sër bu rouge la takk loolu wax la waaw ku ma doon xaar moo ñëwul kooku bu ñëw dama koy sànn ngemb bu ñuul bi na ko takkal. xanaa kooku amul tur. am na tur boo. doo ko tudd boo ko tuddee rek ma tudd ko. ah non yow miy bëre xam nga yow gën a xam ki ngay bëre xam man bëriwu man wax laa mën a def mais yow xam nga ki ngay wax nee lañ la yow comprendre na lépp. Balla Gaye Gris Bordeaux dañoo bëre ba Balla Gaye daanul Gris da dañoo xeex bañ jox Gris euh, par point la ko daanee bal non attends dama lay wax dama ne àll Balla Gaye non damay wax pour lamb waxatuma pour en tant que président Rock. mais est-ce que waxoo pour daw Balla damay ñëwaat ci Balla xaarim danga may jaay xelu mag instant bi danga may magu magu. dama ne la bu fekkee Balla déwén moom lay xaar pour bëre Modou Balla boo ma dinaa ne blanche. ñoragul daal la ngaa jàpp ni ñoragul. exactement parce que moom la mujjee bëri. non munoo munul moom ren. Modou bëre ñaari kom mais Modou am na yenn adversaire yu nekk si làmb na fi am de. non am fi mais mën nañu bëree Balla Gaye ak Modou Lo mën dañuy bëri ji parce que Balla Gaye ak bu ñuy bëree rek. loolu événement la événement gënu ko rëy. moom xam na ku sax moom bu tëddee sax da koy nelawaale xam na ku baax a baax laaju ma ko xam day métti ma ak moom de. Modou na bu baaxul ci kum tolloon mbagg de. man moom tolloo wuñ mbagg. a tolloo taxawaay kay. non yaa ngi sut. mun na ma sut sax waaye tolloo wuñ. baaxul nag ci kum sut waxuma laa kum kum tolloo waxuma laa kum sut. man daal lu ma la wax xanaa déggoo ko. mooy bu demee bay doxee beeke bu ma ko fekkee inte di sax dinaa jël beeke mu nangu mu daanu ma jëlaat beeke bi dugg sama oto dem. bu ngeen bàyyi bu ngeen bàyyi ba mu gën a ak si mbaaru gën a métti. dama ne day yokk Modou comme ni mu bëri tolloo nag Balla Gaye noonu la toll combat ah, ah non dama lay wax dama ne xoolal rek. Modou état physique bi mu indi calme bi mu indi signature bi dama ne la euh, open press ma ne la Modou Lo dafa calme ma ne la ma ne la préparation làmb bi dañ ko préparer calmement. na continuer liggéeyam ba accès si Modou bu boobaa Modou Lo dina ko jël bañuñu ñu ko bëree bëruñu ñu ak moom nag parce que ñu ala kulli àll Modou moom dina bëri ak Ama moom tant que ñu ngi si arène ndax ay morom lañu ay nawle lañu te Ama aussi kenn mënu ko bañ si làmb. mais nag làmb dafa am hiérarchie boo xam ne bii dañ koy bu mu ci tolloo dina ko may chance pour mu bëri ak moom mais pas pour le moment. mooy bu demee bay doxee beeke bu ma fekkee unité di sax dinaa jël beeke mu nangu mu daanu ma jëlaat beeke bi dugg sama to dem. non munoo munul bëre ak moom ren Modou bëre ñaari kom mais Modou am na yenn adversaire yu nekk si làmb ji. ak lu mën a xew da bëri. ak lu mën a xew naa ko. loolu moom sëriñ la ko wax du say wax de. sëriñ sama sama su sëriñ dama xam ne mooy bëri mu loo xale la set moom laa njëkk a bëree mbër xaw ma entraînement te lu ñu daj lu mu daj man xam naa ko moom lu mu daj xam na ko bu tëddee xam na bu baax a baax lu mu daj si combat boobu. image yi ci combat boobu. Ah, déggu ma laay doog maalo bu la waree photo bi da ngay njëkk defar ci 37 maalo ba may takkal ngeen doon ree yaa ngi dégg te xam naa lu ma fa daj te boobu commencé wu ma entraînement dajuma lu metti football laa gëmoon te léegi maa ngi entraînement mbër laa. loolu rek moom bu ko xamee dina xam ne bu may bëree booy booy bi du mbër jour la te léegi booy bu mbër la moo tax ñuy laam-laame nii nii nii nii waaye léppay ñëw